jërë ngeen jëf mbokk internet yi Baol TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di amaat mbégte contentement di jàkkaarloowaat ak yéen mbokk yi ki nga xam ni le premier janvier incha Gaston production ànd koog Makan Mbeng ñoo woote fële ci arène nationale combat war a dox ci diggante ki nga xamante ne mooy Modou Lo ak Boy Niang ku nga xam ne ni Modou daa duggoon Pikine le 5 novembre passé daan ki nga xamante ni mooy Ama Baldé war faa duggaat le premier waaye tey la ëppoon peresu ki nga xamante ni mooy Modou Lo Badou waaye dañoo ñëw fekk kenn koo xamante ni kenn doon ko présenté ci kookoy kan sëñ Mor borom Malika borom njaq yi moom nañ fekk fii tey ci open press Modou Lo yaakaar naa ba la ñëwuloon waaye bii lu tax mu ñëw dinañ ko waxtaanee duñ def lu bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom sëñ Mor nuyu nañ la ci yàlla. naar maa ngi lay fay baax nga ba ma sant yàlla ji seen bi sant sumay ñaari waajur sant sumay yaakaar ànd ak alaaka tamit sëñ Babacar ñaan yal yokk leeram tam si barkeem di waa Sénégal ñëpp di bal ak wala pare yoo xam ne wàññi ko ci ay mois ba mu des ay 2 jours 3 jours waaw pare de sànq yàlla. Uh-huh. pare nañ. mais ngeen di dajeeg xale boo xamante ni nee nañ mooy càppaacoli bi nee na ngeen dugg Pikine daan fa 6 fois bii nee na mooy seen dernière fois ngeen di dugg Pikine di fa daan doomu aadama loolu noonu bu ngeen ko déggee ci communication lan la leen di def. waaw loolu xalaatam la rek moom daa dugg Guédiawaye daan ñëpp. ñu daal élément démarrage. bala nga mooy bi ñun dañoo am élément démarrage moom mooy suñu moom mooy finition moom Boy Niang. moom Boy Niang waaw. la mu waxoon Balla Gaye 2 moom ngeen koy delloo. moom ngeen koy waxaat. Uh-huh. waaw. mais ñu ñëw ci open press u euh, Modou Lo fekk la fi yow sëñ Mor. bee passé gisuñu la woon mais bii dañoo gis sëñ Mor déplacé wu. adversaire bi la wala combat bee ko laaj wala lan la. waaw xam nga combat bee passé daa bëri woon coow bëri tension tool yi bëri ñu si communiqué woon ñëpp dañuy bàyyi xel si combat samay mbokk samay nit ñëpp di ma wax naa ah, ma bul dem bul dem xam nga ma doon moytu lu bëree bëri uh-huh. waaw loolu rek moo waroon ñëw ma bi passé uh-huh. mais tamit su ma ku ma gis ëpp na presse mbooloo kenn ma daa tax loo fi def ak loo fi def uh-huh. mais lu tax tey nga déplacé wu ñëw ci open press waaw dama ñëw pour dooleel suñu mbër rek dooleel suñu xarit suñu soppe suñu lépp di ko ñaan yàlla may ko ndam le premier janvier te rafet na suñu jot loolu nag am nañ si xel bu dalit diggante sëñ Mor ak Modou Lo diggante soppe ak ku mu bëgg parce que lañ juddoo fi leen màggee fi leen yaroo mhm. tey bu ñu taxee fii lu bëree ba nag suñu xol day tooy suñu deret waaw Modou daal mooy Modou uh-huh. yàlla na ko yàlla may ndam boo ñu doon wax ci le premier lan nga ñu ciy wax waaw le premier janvier mën naa ba rek mais lu mu guddi guddi guddi kuréel fi lay fanaan lu mu guddi guddi kuréel nga wax loolu lu la dee la wala lan la guddi guddi fi lay fanaan ah, danoo pare waaj lam kenn ko waaj si benn fan si ñaar fan ñett lam bi waaj nañ ko bu baax nag dem nañ si yaakaar ndam kenn du ko jox lu yàlla suñu borom tam na jot bu rafet di ñu ko jox le premier janvier loolu am na si benn sikk sàkka mais mais xale bi ngeen di dajel Boy Niang ku ko xam-xam ne du bis ku ko xam-xam ne dafa gëm mystique ku ko xam-xam ni lu leer lay def ngeen war a dajeeg moom sëñ Mor waxee nii na ndam li incha allah dañ cay jot le premier janvier xale bi ñu war a bëree ndaanaan la champion la wane na ay preuve am def na li mu war a def si lamb yëpp bay bëre combat royal duñ ko waaye moo mën moo doo doole mënoo dàq bëri mënoo ëpp ñetti mënoo daan bu soobee yàlla. instant yi affaire yi loo gisagum fu mu fu mu féete. amul fu ndam lañ yëg. ndam ngeen yëg. waaw ndam lañ yëg ndam lañ gis te dina am ndam bu soobee yàlla. sëñ Mor yëg na ni Modou Lo day daan Boy Niang la premier janvier. eh loolu mooy gën am na dox. am ñu si benn xel ñaar. danoo jàpp rek lu ama bari di wax ñoo ko fa am. Uh-huh. ñoo ko fa am. les confiance bi sëñ Mor àndal ak ni muy waxee jaaxal na ma torop ñu àndu ñëw ragal. àndu leen ak ragal. xoolal waa ji. saa Touba Ngok. waaw. waaw àndu ragal. mais mais mais mais sëñ Mor. ànd ak ànd ak Modou Lo yomb na. ànd ak Modou na. parce que ndaanaan la champion la. billaahi. ndaanaan la champion la. dafa mel ni da nga jàpp duñ yàgg ak yow mais le premier janvier lan la mën a ndam. dem diggu arrondissement jël droit bi indiwaat ko parcelle. boobu jaaxal na ma sëñ Mor. le premier soriatul. Uh-huh. ay fan yu néew was des. Uh-huh. roi yi parcelles yi fan si mais boo déggee ñu naan Sa Touba ci ay communication moom sax moo ko wax mu ne jour open press Boy Niang ñëw na ci stade bi si open press loolu boo nga ko déggee ban jàngat nga ci am. waaw loolu dara. Uh-huh. loolu dara parce que loolu moom la rek moom tam wax moom moo xam. nit ñi tamit ñu ngi bàyyi jël wax di ko yóbbu xam nga. fi yàlla loolu dara. mais loolu wóor waaw moom moom mi ko def xëy moom xam na tax mu def ko moom ko def ko rek mais loolu dara waaw loolu dara si la am mais boobu sëñ Mor dina ko jol moom <laughs> man maay fit nag yow yaay fit man maay fit man am lu may ragal def si lépp lu ndam jaral dama ko def lépp lu ma sama may sama fit da koy jël fulaari zone yi zone yi zone la ah mu doy bomb roi des arènes baa ngi ah? xarañ loo. roi. le roi. ah. ñu ñooy roi Serigne si. yéenay roi. Serigne si. yow mi barke Seexu Tijaan. Seydou mais secret sëñ ma. liggéey rek. mais nag la dañ ko mën nag. doonoo mën xëccoo. mën bis fekk nañu bis bu ne. ñu uh-huh. lamb ñu si gande bis tam duñ dépassé ndax fekk nañu bis bu ne. Uh-huh. bu premier incha allah. mais bis bi ak yeneen bis yi du benn ben la rek. amul benn la benn la rek. xamul benn différence mais da ngeen ko xaw a minimiser xale bi di Boy Niang non minimiser wuñ ko Boy Niang kenn ko minimiser mais ñoo mën nag ah mais noo ko noo ko gisee noo ko gisee ci open press mi ngi si forme wax dëgg yàlla ah, ah. pare na physiquement ah, Boy Niang pare na physiquement moralement mystiquement pare na pare na yéen fi ci mystiquement da nga koy daan ah sëñ Mor le premier janvier ma ko allah kontaan nan gaa yi ngi yëngal de waa parcelle yéen yéen yéenay waa fan. ñu ngi waa xarañ moo boole. xarañ moo boole. xarañ moo ñu boole ngeen toll ci wàccaay. wàccaay pare nañ lépp si kàttanu yàlla comme niñ ko daan defee rek lu ko raw lañ ñëw tey defee ko noonu. wàcc open press parce que ñun waa xarañ moo ñu boole yàlla dogale lii mooy suñu diggisma mooy mooy orange euh, bleu moo tax chaque com chaque open press dañuy dem Chine commandé ay ballon ay conteneur bu ñu ñëwee waa Chine fa la jógee fa la jëlee fa la fa la ñuy hmm. non fa la yëpp di jógee quoi ay conteneur lay doon ñu andi ko séddale ko waa stade bi xaar la première inshallah ñu daan amaat ñu daan booy ñaaw. mais bi ngeen am ak yeneen adversaire yi benn la. booy ñaaw ngeen am. billaahi pare nañ lépp. kan open press Boy Niang. Ah, seetaan naa ko paa yi Pikine naan dañuy mànkoo di oteesu mais loolu taxu yëngalu ma gis naa mairie Pikine yeeg paa yi ñu def ay digisement di oteesu yi loolu jaaxalu ma. nee na noonu lañ koy defaatee le premier. dégg ma le premier noonu defaatee nee waa julli timis ba pare ñëw sol sama abaya ñëw tuus lu neex daan waa Pikine ñibbi si waat barki yàlla. le premier waa Pikine mairie di otees paa yeeg ñoom luñ luñ def luñ def daal fu ngeen ko teg lu wóor daw rek laa ragal xeeb ngeen xeeb booy ñaa jaaxal xeebuñu ko mbër la ku mën la ba pare xoolal mbër bu ñu respecté la nag mais dama la xamal leen bu la premier bu la premier kuy roi des arènes mook Ama ku gën a neex a bëre booy ñaa gën a naqaree bëre moo gën a naqaree bëre mooy gën a neex a daan mais mooy gën a neex a daan macha allah am na solo waaye mooy gën a neex a daan incha allah si kàttanu yàlla dañ koy duma dañ koy daan booy ñaa na préparé bu baax xam ne lamb ji ñoo ko moom nii rek président kaay Amina siyaar naa la. ñu ngi dellu ci loonee. sant yàlla. yéen ngi ci ëppoon presse bi. tey la rek ça va ñu ngi ci ëppoon presse bi waaw. fu ngeen toll ci la premier. ñun pare nañ la premier. Ah? pare nañ arbitre rek la ñuy xaar. arbitre xaar. bu ñu bi nga xam. mais waa Pikine nee nañ du yomb. waa baax na du yomb ci ñoom kay. non du yomb ci yéen non ah. Ah, xam nga dem foo miin. mais adversaire bi ngeen am ak yeneen adversaire bi la. adversaire la nag adversaire moom kenn ko adversaire la dañ li mu doon waaye ñun xam nañ li ñu yor. mais seen mbër dana woon bëreeg booy Niang moo gën a naqari bëreeg Ama Balde loolu am lu mu def ci yéen. waaw loolu d'accord mbër mbër mbër mbër moom mbër la rek li mu wax tamit dëgg la mbër la li ma la wax léegi dañ koy nangul mais bu la première dina xam ñun miin nañ Pikine. incha allah lan ngay di leen wax rek fair rek ñun ñooy ñëw ñoo leen di fekk si ànd ak yar ak teggin rek comme ñun. bëre kaf foo agré la après ñun ñëpp ay frère la ñu doon ay sœur ñooy bokkaat ndey ñooy bokkaat baay kon na rafet ñun nangu ñu daan leen jël bu rafet ñu ñibbisi ànd ak ñun ñoo féetewu ak ñun waaw loolu rek lañ leen wax. ayca ma nga noonu Badou merci.